On est en train de suivre avec euh, une attention soutenue les explications des techniciens et des experts en la matière, euh, chacun dans son domaine respectif, des explications très pointues et très claires, très nettes et très précises ces explications-là, alors qu'on est en train de donné au Premier ministre Ousmane Sonko. lay baax nga xam ne ñoom la ci seen xam-xam màcc itam ñu leeral ko liñ ci war a leeral moom mi kilifa gi. ça sont les explications de ces techniciens c'est un exposé ou une visite guidée ici à Saint-Louis. Des explications qui sont en train d'être fournies par euh, ces techniciens de l'environnement, de l'hygiène publique, euh, du cadre de vie, de la propreté, du nettoiement, de la propreté, je le disais tout à l'heure, euh, qui sont en train d'être livrées ces explications-là au Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, bi Euh, fii nga xam ne nii moom moo doon itam denn ak chaumière ay barab yoo xam ne itam barab yu siiw la fii ci ndar ku ñuy tegtal sax loolu la ñuy wax ngir ñu leer leen ne lépp luñ ci war a xam ci wàllu liggéey bi ñu ngi ci nag gis nga ni mbalit mi nag ah lii nag mel na ni ratu bi la ak peel bi ak jumtukaay yi nga xam ne nii moom la ñuy tonnee mbalit nii la ko premier Ousmane ko defee bu ñu fàttali ko itam ca caaro yi ca weer wee ñu génn itam noonu la ko premier ministre euh, li président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye defee woon yor fourchette am nga xam ni ku xam mboob ku xam itam am ñax mu ñuy jël itam di ko toon ni mbaa yitam gerte goo xam ne itam maa am ngooñ mu ñuy jël la di nga xam fourchette yooyu nañu mën a liggéey keroog bi ko njiitu réew mi euh, jàppee itam euh, di ci def lu ni mel xel yi dem nañ ca tool ya tey jii nag xel yi dem nañ ci li nga xam ne noonu la ko premier ministre defee jël ratoom ak peelam ci li xam ne ni moom moo doon wàllu woowu ngir liggéey liggéey bu ni Gracias.

Les caméramans.

On va y aller On peut y aller là. Monsieur le Premier ministre. Euh, merci. Euh, vous êtes aujourd'hui à Saint-Louis donc euh, pour cette cérémonie de lancement des activités de nettoiement. Vous venez représenter le président de la République. alors quel message d'abord pour les populations de Saint-Louis et ensuite pour les populations du, Sénégal pour que ces actions-là soient pérennes euh, def de wolof Euh, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu di am mbégte bu rëy teew fii ànd fekk euh, monsieur le ministre de l' assainissement docteur Cheikh Tidiane Dièye ak euh, kilifa yi ñu fi fekk ñu dalal ñu monsieur le gouverneur monsieur le préfet ak mboolem seen autorités yi nga xam ne fekk nañ leen fii tey ñu ngi fii ci cadre Euh, ñaareelu journée bi nga xam ne mooy programme bi ñu lancé muy programme setal sama réew di programme boo xam ne son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye da ko bindoon ci programme am muy benn ci fànn yi ëpp solo ci programme am euh, moo tax bokk na ci li ñu njëkk a lancé bi ñu defee ay semaine rek lañ ko lancé tey ji mom ci boppam son excellence le président Bassirou Diomaye Faye mo fi waroon tew mu waroon doon première sortie euh, bu ñuy bu mi def ci région yi ci cadre programme bi waye yalla dafa def bésu tay bi euh sommet bi wara am CDAO fële Abuja ba tax fi may wax ak yow yéen tembe defe naa yegg na Abuja ndax tay ci suba la dem loola tax mu yónni ma pour ma ñëw teeru ko fi ma ñëw fi nag ak mbégte bu rëy rëy rëy ndax man ku ma xam rek xam sama cofeel ci euh, di njël rek remercier population ndar ndax euh, maa ngi fàttaliku lu soriwul dara dara dara dara ci campagne bi man ma fi ñëwoon campagne ci turu candidat Bassirou Diomaye Faye waaye defe naa liñ fi gis ci bés boobu ñëpp jàppoon nañ ni balaa ñuy jóge ndar pont bi boo moytul dina nërmelu tellement population ndar dañoo génn commencé ko guddi ba ëllëg sa ci fajar midi kon loolu musul am ci campagne électorale ñu koy gërëmee ndar bu baax a baax waaye den wax ni du yem ci gërëm parce que góor góor lay doon te ba askan ji ni mu amee ndar nag la amee fépp ci senegal lenn rek nga mën a def mooy li taxoon ñu am yaakaar ci yow nga xar ci sa tànku tubéy ba ñu gis ci ay résultat lii nag dafay dugg ci cadre boobu rek parce que dafa am lu ñuy sàggane mais mu am solo trop mooy li tubaab di wax cadre de vie euh, ci wolof mooy euh, fa ngay dund dëkkuwaay dëkkuwaay ak li ko wër loolu amul la ëpp solo ci nit nit mun na génn solu ba mel ni fu mu génn ñu ne ko taaru nga li nga sol rafet na waaye bu dee fi mu jóge ku ko fa fekk xeeb ko ci ñàkk set walla ñàkk toppatoo loolu dootul am solo moo tax dëkkuwaay dafa am solo ñu war cee bàyyi xel ñun ñëpp nag parce que dëkkuwaay bu ñu defar ba mu mel ni mu wara mel premier avantage bi moy dina tax ñu weg la ku la fekk ci respecté la ñaareel avantage moy dina fekk walla dina dàq jàngoro yu bëree bëri bëri parce que xam ngeen ni jàngoro yu bëree bëri bëri bëri ñàkk cet ci dëkkuwaay moo koy andi ba nay jàngoro yoo xam ne dégg xamal ni liko andi ba dëkkuwaay bi wan bokk na ci rawatina nag ci mag ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xaw a néew di doole ak euh, tuut tànk yi moo tax ku bëgg a defar réew da ngay njëkk ci li ñuy wax euh, ressources humaines nit ñi nit ñooñu nag ñaar moo leen moo mooy tax ñu jëriñ seen réew mooy ñu fexe ba former leen xel mi sell ku nekk am fenn foo xam ne am nga fa xam-xam boo mën a jëriñee réew mi waaye ñaar ñaar bi mooy yaram yi aussi wér ñaar yooyu boo ko boolee di nga am des ressources humaines de qualité loolu tax président la république jox bés bi cër ñu xam ni it la ñu bëgg ci Sénégalais yi mooy ñu ñu ñu ñu saxal ko ndax problème bi ñu am yépp mooy léeg mën nañoo démarrer waaye bu ñu tout rek mu commencé di wàññeeku di wàññeeku wàññeeku ba mbir concept set set setal yàgg na fi ñun bi ñu nekk ci régime socialiste ñu njëkkoon lancé set setal ba biñ ko anglicisé tuddee ko clinique. day donc du lu bees waaye li war a bees nag mooy taxawaay biñ ci war am ñun ñëpp président de la république defaluñu ko président de la république

ñoom ñoo mun a lënkaloo joxante loxo jàpp ci ñu defar réew kon président de la république yebaloon ma fii ma ànd ak ministre bi nga pour deuxième journée bi première région président de la république déplacé wu yebal man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 ndax li ñuy wax serre couche de serre bi moom mooy tax ba naaj bi buy egsi ci ñun day doolem day wàññeeku bu demee nag ba dañ fi naaj bi day gën a tàng bu ko defee boo demee fi ñuy wax pôle nord nga xam ne ay glace la woon glace yooyu day commencé seey yokk ci géej gi géej itam jël volume ñëw dugg ci suuf si looloo tax ñëpp ñi nga xam ne pays côtier lañu tey am nañu problème boobu waaye rawatina nag Afrique

ay kër yoo xam ne defe naa ñëw naa fi juróomi at ci gannaaw wala lu ko ëpp ñëwoon visité fii yëpp ay kër yu bari yoo xam ne jëlee woon na ñu fi dëkk ñu fi dëkk parce que ndox mi dem na ba jël kër yi yóbbu leen fële booru euh, balaa nga yegg ngalel xaar yàlla defe naa fa lañ leen defaloon ay tente noonu la amee feneen ak feneen du Ndar rek de côte bi yëpp la boo demee ba Kafountine fële ci Casamance di nga ko fa fekk loolu di problème boo xam ne problème bu laaj ay matuwaay la yoo xam ne lancé woon nañ ko fi euh, lim naa ci démb rek lu mat juróom benn programme yoo xam ne ñeenti banque mondiale moo ko financé am na ci boo xam ne union européenne la am na ci boo xam ne AFD la jox nañu ndigal ministre bi nga xam ne mooy saytu lu jëm ci environnement pour ñu defal ñu benn évaluation programme yooyu lan lañ ci def ci ay milliards ban résultat lañ ci am fan lañ ci toll lan mooy gàllankoor yi loolu baax na ñu def ko balaa ñuy dérouler programme yu bees parce que les léeg problème bi ñu am Sénégal mooy dañuy jàll ci programme dem ci benen te duñu évaluer li ñu defoon ak fan la mbir yi dugg ak lan moo lan moo ci doxut loolu di mbir mu am solo waaye li wóor ba wér mooy nu ñuy def ba freiner avancée de la mer loolu yitte gu rëy la ci suñu gouvernement te noonu lañ ko fas yéene wéyalee doore ci li fi li ñu fi jot a def waaye yokk ko ful ko ba ci suñu 700 km de côte yi ñu mën ci am ay résultats fii ñu taxaw ni ñaaral problème bi mooy bël bi bël bi ñëpp xam nañ ko li ko andi woon mooy 2003 bi taw bi xawee am doole trop euh, ñi fi newoon ci kilifa ci jamono jooju newoon ñu dem ba ne bu ñu moytuwul ndar ci boppam dina am inondation yoo xam ne dina doy waar te kër yu bëri dina nekk ci ndox mi. ci la kilifa yi fi newoon joxe woon ndigal dinañu ubbi benn brèche bu ndaw ci géej gi pour ndox mi dem muy woon solution bu baax ci jamono jooju ndax fexe woon na ba inondation yi amul biir Ndar waaye malheureusement conséquences yi mu jur après brèche bi nga xam ne quelques centimètres la woon tey defe naa ëpp na six kilomètres ba amoon impact dëkk yu bëri jël na ko jëloon na ko fu mel ne ay dun baaba jéy ak yeneen waaye defe am na lu ci nit jot def ba tey ensemblement bi def village boobu dellu si na bël bi dafa problème bu xaw a ndax day déplacé wu day vers le sud euh, te démb gouverneur mi dans 25 ans suma jumut la war a ci place am normal donc at wu ne wala ñaari at yu ne dina am benn village boo xam ne euh, dina am problème buy jóge ci bël bi fi mu toll nii su ma juumul booru gàndon la war a doon gànjool bokk safurla booru gànjool kon loolu lañ ci mën a def rek mooy anticiper ci ensablement yi yu demee noonu mais c'est un phénomène naturel boo xam ne dina réglewul boppam lañ ci a def ci accompagner aussi les populations bu soobee yàlla dinañ ko def loolu nag lu gàtt la li wax fii ndax li ëpp solo mooy lancer ko dina am yeneen kàddu yu ñuy wax fenen ndax defe naa am nañu ñetti étape yu dess di wax rek ni euh problème Ndar yépp xam nañ ko la jëm ci napp gi defe naa ren gouvernement def na effort yu rëy rëy bi ñu toogee rek le président yebal ay délégation ministre bi yor napp bi moom ci boppam bi mu demee di nuyoo euh, tournée bi mu doon def di nuyu suñu dëkkandoo yi am na lu mu waxtaanoon le président Mauritanie ba euh, nombre licences de pêche yu continuer à tranquillement ñu génn ci temps de faire délégation pour ministre de la pêche Nous que j'étais on, résultats de problème sur la base des licences de pêche prélever quota autorisé nañ leen ko ñu boole ci nag matuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci accord de pêche ndax loolu dañ ko yàgg a wax démb ba ñuy doon opposition te lu ñu mu sax en tant qu'opposant rek bu soobee yàlla dinañ ko def en tant que euh, bu ñu egsee ci pouvoir execution programme nag dañ koy dérouler étape par étape waaye gis ngeen premier acte yi ñu posé ci li jëm ci accord de pêche yi fa ñu bëgg a jëm daal gëm naa ni bato dootul jóge bitim réew yor filet yu ko neex mën a buub suñu géej gi yëpp te du débarquer fii biir Sénégal yóbbu géej gi la mu soxlawul mu sànni ko ci géej gi loolu moom dina jeex ci Sénégal te li ñu waxoon ni dina am benn benn zone boo xam ne bato Sénégal kese moo fay dem nappi loolu it dinañ ci jublu ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey déjà te defe naa accord de pêche yooyu léegi mu jeex ñu war a dugg ci phase de renégociation te boobaa di ngeen xam ni fal ngeen ñu am fulla ñu bëgg Sénégal ñu jiital intérêt Sénégal ci keneen ku dul sénégalais kon lii lu ñu bëggoon a lancer la rek pour ubbi journée bi di féliciter waa Ndar yëpp ci mobilisation bi euh, di leen wax nag du mobilisation parce que premier ministre mi ngi ñëw dafa war doon mobilisation ci journée bi yëpp nag rawatina ndaw ñi. ñu setal ndar ba mu set wicc waaye setal baax na trop waaye bañ a tilimal moo gën fuuf lool it ci suñu jikko lañ ko war a dugal di koy mooy ñeneen ñi waruñ ñoo gën suñu bopp ñun sama benn xarit boo xam ne ambassadeur la woon Japon yàgg fa mu ne ma japonais yi ku ciy doxantoog xajam ngoon sax dangay yor benn mbuus boo demee ba xaj bi bëgg a def ay soxlaam da ngay lal mbuus mi mu def ko ci nga takk ba gis poubelle nga fa soo gisul di nga dox ba sa kër dugal ko sa poubelle loolu mooy bëgg sa réew kon il faut ñu góorgóorlu ñu nit ba yenn pratique yi nga xam ne mooy tilimal ku ñëw sànni sa palanteer wala nga bale sànni sa buntu morom wala soo lekkee sa banaana sànni ci yoon bi ñu parce que sel ñàkk a ñàkk a tilimal moo gën fuuf war a nettoyer après kon loolu it message bu ñuy lancer te xam nañ ni waa Ndar kenn du leen ci jiitu ndax ku wax Ndar wax civilisation ku wax Ndar wax yiw tey dal en tout cas loolu la ñu loolu la ñu mandargalee Ndar kon gëm naa ni waa Ndar kenn du leen jiitu ci nouveau citoyen boobu ñu bëgg nga xam ne day am préoccupation saa su ne ci liy liy rafetal wala liy setal dëkk bi